kon dars bi dars niveau débutant la ñi doog a tàmbale ak ñi bëgg nafar bu ko defee dars bi ñi ngi ciy sukkandiku ci تلقين الاعتقاد للصبيان والأولاد بو الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى mu nekk ak tënk boo xamante ni nii daf koo tënk ci téeréem boobu nga xam ni mooy al asila wal ajwiba al jaliya fi al aqidati al islamiya mu nekk tënk bu am solo ma mu tuddee ko sa li nga xam ni mooy pas-pas ñeel ndaw ñi ak gone yi ñu saleen pas-pas jàngal leen ko fexe pas-pas bu wér ne ci ñoom ngëm yàlla gu set ne ci ñoom xam ngeen loolu bëri na ay tegtal bëri na ay firnde bokk na ci xadisu abdullah ibni abbas ya gulaamu inni uallimuka kalimat xoolal loolu yonent bi ne ko gone gi man de dinaa la jàngal ay baat sako ko mu wattu ko mokkal ko daa di koy jàngale ba mu egsi ci ñun kazalika jundub kazalika ñeneen ak ñeneen bu ko defee kon loolu lu jara bàyyi xel la nga gis kon yonantu alayhi salaatu wasalaam yittewoo bi mu yittewoo mbiru ndaw ñi mbiru xale ñi yittewoo bi mu yittewoo mbiru pas-pas mbiru ngëm yàlla pas-pas bu wér ngëm yàlla bu jub bu set bu baax ndax ci la yeneen jëf yi di tabaxoo ci kaw loolu pas-pas bu setul bu tilimee yeneen jëf yi day topp pas-pas ba pas-pas ba bu setee bu wéree yeneen jëf yi day topp pas-pas ba day mel ni rek ndab li nga xamante ni nii ci ngay yekk ñam wi pour ñu lekk ko moo ndax da nangu ndab la tilim déedéet déedéet ndab la bu tilimee setut koo ko tegal du dugal loxoom ci biir ndab li waaw ak lu ñam wa neex neex nag loolu lu jar a bàyyi xel la bu ko defee kon ñu ñëw ci laaj bu njëkk bi mu jiital ci moom boroom téere bi laaj yi ñuy laaj ku nekk ci sa biir bàmmeel seen réew mii nag muy Sénégal dégg ngeen ay nit ñu bari ñoo xamante ni nii wut koppar wut koppar tax ñuy wax ay adaim ay mbir yu rëy pour ñu jox leen ay ay mille francs ay deux mille trois mille naan léegi kenn dootu laaj nit ñi seen biir bàmmeel man rabbuka man nabiyuka maa diinuka diw lañ fay laaj diw nee nañ diw lañ fay laaj allahul mustaan xoola tegandaayu sharia tegandaayu islaam ay sénégalais ñoo am sañ-sañu soppi ko fuñ ko teg fuñ ko teg teguñu ko fenn fu dul ne nañ xool li neex nit ñi ci parparloo ak ci taamu ay nit ñu wax leen ko pour mën a lekk seen dërëm lii lii lii mooy diine islaam bu ko defee boroom téere bi ci laaj bu njëkk bi mu ne man rabbuka man rabbuka loolu mooy kan mooy sa boroom mu ne tontu ba rabbi allah sama boroom de mooy allah gis nga waaye xam ngeen ne boroom xam-xam yi nee nañu laaj yii muskallaf wi dafa war a góor góorlu mu xam ko xamin woo xam ni day tegu ci ay tegtal ci ay dalil loolu moo tax kon mu laaj ànd ak tegtal tegtal yi bari nañu ci alquran ak ci sunna waaye dañ ci taamu benn ndax bugguñu mu gudd lool mu nekk loo xam ni lu tënku masala bi tegtal bi bu ko defee mu nekk lu yomba jàpp lu yomba tënk tënkin wu dëgër wu wér te leer te wóor bi idnillahi azza wa jal kon man rabbuka kan mooy sa boroom tontu bi mooy rabbi allah yàlla mooy sama boroom léegi lan mooy dalil bi dalil bi bokk na ca alhamdu lillahi rabbil alamin alhamdu mboolem cant lillahi mi ngi ñeel allah rabbil alamin borom mbindeef yi yow lan nga mbindeef laa kenn nga ci biir mbindeef yi kon kuy sa boroom allah mooy sama boroom gis nga tegtal bi gis nga tamit wajhul istidlaal bi maanaam fa tegtaloo bi nekk ci biir tegtal bi rabbil alamin borom mbindeef yi man lan laa man mbindeef laa kon kuy sama borom allah alhamdu lillahi allah moomu allah moomu allah moomu mooy sama borom te mooy borom mbindeef yépp kon gis nga laaj bi mi ngi noonu tontu bi mi ngi noonu firnde bi mi ngi noonu laaj bi mooy man rabbuka kuy sa borom tontu bi mooy lan rabbi allah yàlla mooy sama borom firnde bi nag preuve bi mooy lan preuve bi mooy alhamdu lillahi rabbil alamin mboolem cant ñel na allah mi nga xam ni mooy borom mbindeef yépp ak it na nga xamante ni nii ana mu tegtalu bi على متكتب بناء بوكا دافي كون نيتك فوف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته